naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar li ko waral mooy gis ngeen fi ma toog tey maa ngeeti ci gaal xam nga gaal moom fële laa ko mujj duggee Banjul diggante Baara ak waaye tey nag gaal gi ma dugg wala gi ma toog biir Ndakaaru Njaay la maa ngi Corniche Soumbédioune kiñ fi seet si defe naa bu ñu ne Soumbédioune seen xel dina dem ci koo xam ne promoteur la di jeune di baaba Diaw tëgg samdi la 10 diggante caatu yaraax mi ngeen xam bu yaraax di doomu yaraax ak zal bawal bu rëbës di doomu bawal mu boole leen muy grand combat bi ak yeneen petit combat yoo xam ne laxasu na ca biir tey nag moo tax ñu seet si ko laaj baaba nu muy waajee bés boobu ak organisation ba nu muy demee ak ticket ndax ku ne gisoon nga soq gàmmu géey loolu baaba fa jaaroon keroog arène nationale yëngu woon na trop trop trop baaba mu nuyu la ziar la mbaa am nga jaam. waaw Bas maa lay fay. naka yëngu bu baax. léegi ci gaal nga ma toogloo man pour man ay ci wàllum. waaw ndax fii donc sooy xool sama pap fii la defee léppam. su mbéjun bii. bii tefesu géej gi. tefes bi kon dama fa am cër. mais mag tamit fii la nekk comme ki nekk si ginnaaw sama mag la kii suma mag la ki suma mag la kon su ma jëm man dama si bokk moo tax xam moom feet tamit pour defal ko fi émission bi. am na solo say mag moom faw ma cof leen comme say mag lañu sëñ bi loo mën a wax si baaba yow. ah kilifa gi salaamaaleykum waaw ñun ay magam lañu waaye ay magam euh, yu mu jox cër lañu waaw moo tax lépp lu mu sumb rek lépp lu mu dugg rek dañ si xar suñu tànk tubay waaw ñun noonu la ñu mel waaw parce que moom tamit dafa nekk koo xam ne suñu rakk ju baax la wax dëgg yàlla seetaanul benn mbokkam seetaay bu ñu nee diw baax na rek dañ naan dikkee leen si ay mbokkam waaye wax dëgg yàlla lu mu am bokk na ko kay mbokkam jox na cër ay magam jox na cër ay xaritam moo tax daal lu mu dugg lu nee rek ñu dañ ciy sóobu ba jeex tàkk waaw tur bi jibi la waaw. jibi nee na waaw wax na dëgg diw baax na ñu ne mbokk yaa ko wax sëñ bi doo si tuuti yow ah yow comme tamit grand frère nga ah parce que des fois loolu dafay am solo de gomis diw baax na ndax mbokk yaa ko wax tur nan la. waaw tur bi ama caam la waaw. baaba sama rakk la mun na wax toppul sax si man hmm. wante. dafa nekk bokk ndey ak baay baay toppul sax si man ah. dafa nekk raq bu baax raq bu yëg ay magam baaba maanaam suñu naan diw baax na dañuy ndëkk laaj ndax mbokk yi ñoo ko wax kër ga xale ak ndaw mag ndaw doomu magam yëpp la yemale lu mu yor indi jox leen ko ba si démb si démb si mujj maa ngi tëdd sama néeg di nelaw ma yeewu sama yaay na ma baaba ñëwoon na fi sama rakk yi jigéen ñoom ñoo waxal seen bopp nee na ba mu ñëwee li mu leen tàmmaloon moom la leen defal kon moom dañ koy bàyyi yàlla ndax tey jii seetaanul ay magam fu suñu bëggul sax ñu jàmmat kon yaakaar naa ne kuy defar ay jàmbur waxuma la ay mbokkam moom daal dañ koy bàyyi yàlla lu mu sumb nii yaa ngi dégg te xam naa ne moom jeune Médina yëpp ñoo ngi si ginnaawam ndax xam nga luye baas yomb na luye nit moo jafe. ku leen woo ñu ñëw da nga da am lu leen ji. voilà ndax nekk nit boo xam ne nit ku baax la nit ku yaatu la alalam du ko boole kenn damay romb ay nit sax ñu ne ma sa raq ji de maanaam def na loo xam ne bu sax toog ak benn maire mu wow mu ne ma de lii su ma la ko waxul su gor mu ne ma mus naa am problème courant ñu yabal ko naka damal seeti baaba moom miinul baaba. waan ba mu ñëwee nuyoo ndaxa baaba yow laay seet bu mu ko expliqué problème nee na ba ko baaba joxe moo ma wax de nee na ba ko baaba joxe ba mu dugalee loxam si ba mu génnee xool dafa doom bu jigéen la ànd mu laaj ndax baaba ndax juumul doom yi na ko juumul kii nii la men bugul gis kuy jàmmat kon alalam du ko boole kenn lu koy ñaanal daal wérgu yaram te xam ne fu mu bëgg a yegg dina fa yegg du soobee kuy maye loolu lañ koy ñaanal daal kontaan ci yow baaba kii moom mooy kii sol maillot Real bi mooy kan. kii mooy Déthié. jeune la xale la te gëm boppam. gis nga fi ñu muy yaatoo. gis doomu aadama ñu fu nekk. moom la ñu wóolu jiital ko. moom moo seen président waaw. moo tax tamit dama am dama am mbégte pour jox ko bis bi bis bu mag. da nga ko jox bés moom mi bu mag ban bés nga ko jox. deuxième numéro 2 max Taymax. Ah. da nga taxawal boobu boobu taxaw na. loolu combat brise de mer numéro 2 moo xam bu Caaroy ak Tmax bu Grand Yoff kooku lébu la waa brise de mer waa doomu doomu doomu la. lébu la moom tamit lébu la kon du esaat moo tax jox ko loolu le 15 août bi. diggante double moteur ak ki nga xam ne moom mooy eh, Quench. dama bëgg lébu saf sap. si bis boobu gumbe gaak ndaw mu saf sap moo tax tamit boo moom incha allah tolloo bëgg naa ànd ak moom liggéey si bu baax incha allah. kon yow yaa jiite lébu yi fii yore gaal yi moom defe naa ne buñ la dubbee bés bu mel noonu te ne daa bëgg bés ba saf gumbe <laughs> ak ndaw rab bi nag joow gaal ak yooyu maa ngi lay ziar kilifa gi tur bi. ah man maa ngi tudd Déthié Diallo nekk euh, fii Soumbédioune ñu fal fi président association jàppal ma jàpp bu Soumbédioune waaw ñu nekk nag ay ndaw dëkk tamit Medina nekkandoog baaba mi ak magam yii ñi ñëpp. parce que mun naa ne kii moo ma yar waaw comme nu mu yaree kii noonu lañ mu yaree sama lépp fii moom la kon su ma demee ba am fit nekk fi yàlla ak mooma ñu nekk ak tamit baaba mi bokkundoo Medina bi mu fi def loo xamante ne suñ koy wax sëñ Babacar mën nañ fi fanaan wallahi azim ku dee asaba mel kii ñun amuñ fayam ñun Medi waa Medina mouvement mi bi ñu nekk ñu nagal mouvement Medina mbooloo mooy président bi nii xaw ma ndax mos nañ la ko wax wala mi ngi nii moom mooy président bi waa Medina yëpp Medina lu muy rey rëy rëy ñu ñëw tànn ko nekk yow yaa ñu day yow la ñuy jiital ndaxte yow la nga ñu won moo ñu doy nekk nga ndaw waaye ndaw bu loxam set am yërmande muy mag di ndaw fu sa bët xonk boo jaaxee nga ne xaaral ma dem xooli baaba baaba bu ko amul wallaahi azim laa la wax yàlla na may ma tuuti ma ñëw. fu mu ko mën a lijjantee dina ko lijjanti après buy des moom mu des ko fajal la sa soxla kon kooku ñun amuñu loo xamante ni mën nañ ko fay lu dul di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne mooy bala may lépp lu mu am yéene si Medina yàlla defal ko ko ñun nag dañu kontaan delluwaat waaw kontaan parce que le bi mu wax nii man de yàlla xam bi ma ko waxee ah dama ne Soumbédioune moo aye Soumbédioune moo ko moom journée boobu journée Soumbédioune la te incha allah lépp lu si war def si kàttanu yàlla ginañ ko def waxuma la sumbe jun kese muy yoof ak kayaar ak mbuur fépp foo xalaat rek ne nit gën a fa jóge incha allah ngir bis bi te Medina moom kenn du des parce que nu mu nekkee nitu Medina noo laa nekkee nitu nitu Medina di su woo ñëpp nag waaw ñu ànd sa suñuy mag ku si mel mii bokk si ñu yar si ñu ñu yar daal dañuy sant yàlla bu Medina amee nit ñu mel nii nga xam ne ñun daal tiituñu dara ñu dara ndaxte fépp fu ñu war a jaar ñu ngi fay jaar toxuñu naanuñu sàccuñu liggéey lañu gëm liggéey kese jaamu yàlla waaw foo ñu fekk ñu ngi waxtaanee lool kese moo tax nag bi incha allah lépp lu si war doomu Medina gi nañ ko def si kàttanu yàlla. sëñ Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leen taaf ñu si barkeem doon na wax ne lu liggéey ak jaamu yàlla wu ma cig defar wu ma cig yàqu te doomu aadama lool doo ko mën a jariñ liggéey jaamu yàlla kese loolu doo ñu fi indi Ibou Thiam. Euh, non non Thiam bi. Ibou kon Ibou faaw mu sànni ci kàddu. Ibou Ibou Ibou Ibou. salaamaaleykum. waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw dama kontaan euh, si Thiam production si Baba Diaw avant tout parce que Baba man ak magam bi mu toog fii ñoo foowandoo mais man yëkkati ma yombul. nit booy dox si ful la ak fayda man dama la siy fekk si amul nga mag ma amul ma mag la dama am sama benn mag boo xam ne chaque jour day toog topp sama nopp di wax ni yen dafa diis mais bu amee ku nekk bu ci jàppee fenn rek mu oyof ci ci ki ka yanu moom dafa yanu bi mu yanoo xaaru si kenn nag daa jëral yanu ñun tamit ñu gis ne nañ ko war a jàppale ñun ñëpp ñu daw jàpp ñun ñëpp dañuy jàpp social gis nga say waajur say waajur buñ ko commencé wul yow mënoo kaa mënoo kaa def daf koy da nga koy doon daf kaa doon magam yi ngay gis nii magam yi ngay gis nii tey boo amoon sa soxla ñu yor yëfu jàmbur ñeme leen la kaa jox après nga toppaleen borom borom ku moom loolu topp kon moom mii neen noonu la mën a xale la xam na fi muy teg tànkam te encore tamit du def dara te du laajte de demul ak ak ak xel boppam de day laajte day woote laajte dama bëgg def lii gars yi ne nii nii nii ba trouver terrain d'entente ñu ne acca man de looloo tax ma ko jàppale ko ngir yàlla ak yonent bi ak moom la mu bëgg a bëggal ko Medina nag Medina laa juddoo falaa laa moom laa xam ku jógee ci baa Babacar Sy si baa la commencé mooy lan président fan si club Diène Kaïré la commencé dafa rampe de dafa rampe ba yàlla tollale ko fii te ci kanam la jëm xoolus ku am xaalis pour tuddee la làmb xoolus ku amul xaalis parce que tey jii sumba jun ni mu mel tey bu ko neexoon du du leen ko tuddee mënoon na seet yi yeneen am na yeneen cadre yu fi nekk mu tuddee leen ko xoolul loolu de ku ñëwoon di ko proposé yow tey boo amoon sa nit nga ñëw nee ko baaba tuddeel nit dal naan déedéet man xam naa ko tuddeewu la pour ut si xaalis kon boog dañ koy ñaanal rek xale la yàlla na ko yàlla jàppale jàppale ñu ñun tamit parce que bu ñu jàppalee rek jàppale ko parce que ñun dañuy jug rek pour jàppale ko suñu journée bii nag bi bi le 10 bii nag bii moom defe naa stade bi ku yéex rek doom place waa Rëbës waa Rëbës ni ñu jógee ak waa Yaraax non samedi ku tardé doo di quatre heures doo place la illa jërëjëf waay merci merci sëñ Babacar taawu kër gi di seen mag ñoom ñëpp waaw jaboote xale yi waaw waaw d' abord euh, da yan bu diis la ku ne xam ne làmb yombul ma ne ma nekk promoteur mais loolu lu mu yàgg bëgg la xam nga boo xoolee promoteur bi dafa daf ko dab mais lu mu yàgg bëgg la boo xoolee bu mu nekk xale ay mbapat ak ay yooyu day organiser di ay affaire yooyu bëgg a làmb ci ay maanaam da ko bëgg loo xam ne waaw da ko doon moo tax promoteur bu ñëwee si moom après du diis si moom parce que lu mu dund la lu mu yàgg dund loolu moo tax quoi voilà dafa rampe dafa jaar si yoon bi nekk avant mu ne promoteur maanaam bëgg a làmb promoteur balaa nga koy nekk da ngay da amateur ba pare soo nekkee promoteur da ngay xam yoon bi. ak lu mu def si yow parce que tamit lii nii ñu ko wax joxoo leen lem joxoo leen suukar maanaam ça veut dire que ci seen kanam nga yaro mais bon wax yi ñu wax ni defe naa ne ci seen xol la jóge génn ci seen làmmiñ te lu nekk la du lu ñu sos. waaw loolu da lay yokk jom rek. da lay yokk jom euh, suma mag bi kii tey su ma meloon ni moom la ëmm moomu dugal si métier bi may fal bu may waaye dama bëgg a jàng métier mu yóbbu ma si atelier ma ko non non métier dëgg mu xee ma ñibbi mu semaine boobu mu en tout cas mu ñëwaat gàll jël si ma indi ma si bi. kon donc lépp lu ma mer moom la billaahi événement dama am jot yaa ma dégg ma ma ñëw taxaw indi ko loo xam ne nii dèjà mu boppam jox ma ko wàcc nabi Moustapha kon donc moom damay xama lu mu wax ne nga damay gën a yokk jom jibi même chose waaw ñoom ay exemple la waaw man si gàttal damay yokk jom Euh, samedi lamb ji foo koy tëggee. samedi Iba Mar la. Iba nga tëgg saal Bawol caatu yaraax jël ay xale yu am xorom yu am mbooloo def ko ca euh, mën nañu xam tey bu ñu si programme mu samedi parce que lamb ji moom dina neex dèjà mais prix ticket yi ak yu mel ni ki noonu gaa organisation bi yooyu. waaw comment comme lamb xale la saal Bawol caatu yaraax la xam nga ah bay la am na 2000 am na 5000. ticket supporter yi mooy 2000. mooy 2000 amateur bi 3000. mil loge bi mooy 5000. comprendre mais dina am si beneen anam boo xam ne tamit ku fi ñëw dina mus war nga gis loo musul gis. waaw loolu moom mooy comme comme loolu Ibou wax ak moom moo ko gérer. moom mooy gérer loolu comprendre uh-huh. waaw na parce que man daal wax daal mënul ma ko. waaw jëf leen gën mën ko wax. Uh-huh. waaw mais bis boobu daal ku fa ñëw soxal dina sedd. di leen sécurité lépp di leen jël zemi dina doy et ku fi ñëw dina ñibbi si jàmm te len du la tuuse waaw. bu nga jógee ci journée bu rëy parce que journée bi nga jógee bokk na ci journée yi gën a rek muy ki nga xam ne moom mooy euh, gàmmu gi ak soq nga jamaat ci journée la 10 mu mel ni kon daal li olof naan fa nga wax fa fa nga nekkoon ngay delloo sa loxo rek daa mel ni de. waaw xam nga àdduna sama yaay damay wax naan maam mi soo si duggee te gëmoo ko. te ko bàyyi man dama ko gëm te gëm naa ni fu gars yi egg solo si moom dinaa fa egg te voilà bu ñu jógee foofu ñu indiwaat double moteur coince. boobu kañ la. le 15 août. bi mooy double moteur coince. waaw. incha allah brise de mer numéro 2 di bëri T-Max. T-Max bi te am na yeneen ay combat yoo xam ni am na yenn combat yoo xam ne encore dañ ko fay dugal te instant yii waa instant si montage bi lañ nekk nii dafa sotteegul. ci boobu dama bëgg mu doon bis boo xam donc soo daanaka sooy xool sax man maay tëj làmb ji waaw suba juumul le bi. am na yeneen journée ci waat sax waaye xam naa ne man naam Thiam production mu tëjee fa saison parce que la bala 21 août ba jëm mois d' août bi mu am na ay combat mais xam naa daal dina bokk ci komba yi mujj ci bi ren moom. waaw ba tey waaw combat moo la dama si bëgg a def loo xam ne nii war nga nit du ko gaaw a fàtte. ndax Maama Lamine Garga de Vox Arena boobu le 21 août la. waaw ah, xamam man est-ce que moo jàppoon boobu am woon ku jàppoon waaw Kobaal ah, ok foofu laa kii maa woon tëj. pour mën a dimbali yenn promoteurs yi ñu boucler seen saison. Kobaal maanaam bis def bis boo xam ne nii doomu aadama du ko gaaw a fàtte ba si signature bi ba si jàkkaarloo ba si maam si lépp dañ si bëgg indi benn facette boo xam bu bees Kobaal. loo xam ne tey doomu aadama am nga du ko gaaw a fàtte fu muy amee boobu. ñooñu xool waaw non am na signature boo xam signature am loo xam diine laay def. diine diine. diine de gala. waaw. double moteur Quench. Quench bi. diine gala bu koy woy. non waaw non musicien bu mag la. musicien bu mag la ko nar a mag la ndax laat. bàkki ak ma laay waxu caaxaan baab si. non xam naa la. lu ma gëmul du ma ko wax. laat kay ci organiser rek. waaw ndax am na koo xam ne war nañu ko seete ministère bu mag la. waaw war nañu ko seete. waaw wala ban fin temps bu ñu mu. waaw bu doole bu am doole. xam nga xanaa costume la sol bu ñuy ñëw kon. wala dañuy ñëw lu rafet. si kos sol. ñëw diine sol. waaw ñi sax nag sol man de nag ma sol kos. non moom loo bëgg ma def ko. xam nga waaw. bas daal xam di ñaan jàmm daal ndax àdduna moom lépp loolu jàmm moo si gën xam nga di ñaan ñëpp jàmm di ñaan promoteur ñëpp jàmm yàlla na ñëpp réussir ko ba na man lu ma gëm mooy tey si euh, exemple su jeey amee maa am man loolu laa gëm suma life kon damay ñaan promoteur yëpp jàmm muy Pape Abdou Fall muy falu Ndiaye di Assane Ndiaye di xama Sam Dieye Gibson ñëpp daal man ñëpp laa yemale. comment kon damay ñaanal ñëpp jàmm. suma famille. ñaanal suma ay copains tamit comment ndax lu ma dugg dugg si ñëpp nag. le 10 le bi. samedi samedi. ci stade Iba ana Abba ak euh, Amdi. léegi leen bousee. Ah. waaw sa gaa yooyu. <laughs> ak Modou Roubé. Roubé eh, moom moom bis bis bisu ak dafa yenn. moom bis bi dafa yenn. ba ba ay bisu jàmm sax da ciy sonn bàkki axoon muur borom baax dem combat wu ba noonu la sonne sonne ku dem lay jël def si essence di jaabale si porte yi bàkki axoon saa saa sax man maa koy defal xam mel ni drapeau yi tamit drapeau benn bi ki nga ko tudde doomu Medina waaye ñoom ñëpp ay doomu Medina lañ bu mag bi Paate Ndoy la bu mag bi dëgg yàlla sax waa nga yaa ma si waat xel lay fatu Paate lépp def na ko barke Alxuraan TFM moo fay lépp ba non comme lu ma la man lu ma gëm du ma ko jël xaalis bi taal may ma ko baax na kon dañ dañ ñaana ñaanal yàlla moom lu mu bëgg moom dem si maintenant bi yal na ko yàlla jàppale ndax seen du asamaan jaww buuxante ku ku si nekk maam sa ceex mën na ko jël kon dañ koy ñaanal yàlla moom lu mu bëgg si maintenant bi yal na ko yàlla def ko baax la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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk